waxande. non ah. oh. <laughs> yow Messi ak Cristiano ku dàq football. Cristiano. non. Uh-huh. pourquoi Cristiano dàq dama bëgg nga relax quoi nga bàyyi sa li nga nekkee nii parce que là tu es on dirait que tu es triste quoi mais kaa ñu waxtaan dëggantaan Ndiaye Babacar dafa am genn. Hmm? Hmm? Babacar dafa am genn. non. Ah! <laughs> comment tu as non c'est c'est que c'est pas vrai. J'en sais rien. T'en C'est pas ton Si. C'est ton Pourquoi tu sais pas oh. J'ai laajuma ko de. Ablaye. Hmm. wax ma. dee ma ko personne ne va. non. nu mu booy bi booy Babacar bi. j'en sais rien. dee ma ko dee ma ko man ak yow ñooy waxtaan fii. caw loxo bi nu mu tudd. non j'en sais rien. waaw la tuddee noonu. gal <laughs> bi j'en sais rien la tudd nu mu sant. rien. <laughs> alors vous avez créé quoi les gars pourquoi vous amenez cet ordinateur là. ordinateur bi pour refroidisseur. refroidisseur dañoo créé pour ordinateur parce ordinateur bi soo ko utilisé à certains moments day chauffer day chauffer aussi ordinateur bi am nañ refroidisseur bu ñu ci intégré mais boobu c'est pas suffisant quoi. Mais à chaque fois que je pose mon ordinateur sur mes cuisses et que je travaille, à un moment donné, j'en peux plus, je l'enlève. Eh oui. fait tàng. Oui. Et da ngeen créer ordinateur. Oui. Mm. Mais wan leen ma bu leen ma xool ni ne xujju. Tëj PC ordinateur bi nag wax dëgg yàlla nga ne na torop. problème yaa ngay démarrer tegal ah? bi baax na. waaw baax na kay. Ah. tey laa xam ndax refroidisseur bi day refroidir wala pas. ajaa yaa ngi si plateau bi de su baaxul rek nañu wax baaxul. parce <laughs> que booy dañuy xëy naan ma ay je ne sais pas je ne rien. <laughs> je ne rien man nga wax je ne sais rien yow. <laughs> da nga xam gelu Ablaye bi gelu Babacar bi nu mu tudd. Babacar saa waay gelu bi nu mu tudd. amuñ dara de. ah ci te protège ci le protège. lan la ordinateur bi dafa am problème. daa mel daa vide. dafa vide mais bi ngeen di ñëw tamit yéen télé mënoon ngeen ko chargé yéen sama gars yi. su amee kii euh, tête chargeur mën naa ko fan laa koy jëlee fii. mani tête chargeur laa wax fan laa koy jëlee. léegi ko am <laughs> booy bi taal na ordinateur taxul mu teg ko léegi ñun dañoo war a tester refradis abal leen ma ordinateur si kër gi ko am ordinateur man sama ordinateur mu nga sama oto te mënu maa génn fii nii di may sama booy la mën a ngeen may def li ngeen may def li ku am ordinateur fàllu xoolal leen ma régie ku fa am benn machine portable seen machine bii nga xam ne machine yu yàgg yooyu la pourquoi booy génie créateur yi duñ def affair yu simple seen bouton d'allumage bi mu aussi dëgër na waaw léegi ñu essayé waat beneen en attendant Fallou di ma abal ordinateur l lan ma ordinateur <laughs> ay waay lii la la lii benn jeu benn jeu <laughs> jeu comme jeu bi day laaj concentration léegi weñ bi nii waaw moom ngay jaarale pour mu ñëw ba fii nii sans que nga laal kii nii cuivre bi soo ko laalee léegi moteur bi day tourner day vibrer loolu lan la ah laal nga laal nga laal nga laal nga alaaji indi ma see indi ma see am tega sa ordinateur cour d'abb bi fële <laughs> fii laat <laughs> léegi fii laay commencé waaw il faut me concentrer wu nga mën kaa foog mu concentrer wu concentration maximum bàjjan xaaral ma jël nii sama noonu yëpp a ngi may seeraan si télé bi booy c'est vous qui avez créé pourquoi boo ko laalee nii muy muy roulé parce que comme ça. man roulé wul gis nga maa ngi jàll nii te roulé wul. <laughs> Ah, affaire yi mën na weeraate <laughs> d'accord maintenant je joue vraiment vraiment c'est affaire bi dafa xat aussi parce que day gaaw a laal quoi. Oh. bu ko defee mu yomb tamit du kii nii. attends rek yow. 4 3 2 su ma laalee. <laughs> non du ma laal sax bàyyi ma bàyyi ma wax woowee ma diw sax wala woowee ma diw. allahu akbar maa ngi mel ne kuy def kuy réparer moteur avion de. oh et je peux continuer de là. ok. booy lii kenn moo ko mën def fi lii kenn mënu ko def juma essaie lii personne peut faire ça. <laughs> non démb réussir naa ko. démb réussiroo dara parce que kenn filmé wu ko. déedéet déedéet indi ma dimbali la abal ñu branché. bi chargeur bu yàgg ba lay yor de. amoo ne benn ordinateur si kër gi. <laughs> ci kanam la ci kanam. si fii. fii fii fii fii. si ginnaaw écran bi. non laal daa ko kontaan de. yombul de. yombul moom concentration la laaj. xale bi def nañu xale yow. laal na. déedéet. ah waaw léegi mu tourné de. eh juma bu ko fi réussir damay am gàcce de. mu yéen kii mu ngi réussir di <laughs> maa ngi lay reetaan loo pour que perte soo réussir dina am gàcce ah, man maay defar yaa ma déconcentré <laughs> eh defal ndànk yow dernier sama dernière sama xoolal dama bii moom damay concentré moom sama dernière chance mbokk yi xaw ma ne nga may leen ma kër pour ma réussir affaire <laughs> fay moo nee na je suis fier de mon prof. Ah. Faya ah, <laughs> prof portugais ah. <laughs> Portugal. <laughs> Cristiano. ok. eh defal ndànk commencé gu ma ngay wëndeelu ni ok. un deux go. daal nga. may leen ma ay kër pour ma pour ma un deux go. fay moom mooy garet. man du ma dépassé fii fii fii fii fii ah kii moom jeu bi moom dafa ma contre moom. est-ce que duñ ko reetaan loo tamit. reetaan loo ma nga xool. woy yaayooy sama tekki ñëwoon na ba doy na ngay di lakk waaye lii lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw laa la wax lii dara mënu ko justifier voilà léegi créé ngeen lii ba pare. ok lii moom baaxul moom xam naa lii moom créé ngeen ko mais dama ko yóbbu sama kër parce que gars léegi lii bu vidéo fan ngay chargé. non prévoir ñu ko parce que amuñu temps bu bëri quoi. donc amul charge. non non ambulance la fi nekk nii. su batterie bi jeexee rek jeex na. su batterie bi jeexee mën nañ kaa tëj kii euh, après chargé ko mais bëggoon nañ ko def mais on avait pas le temps quoi. barki yàlla ñii mbenn baara jaw jaañ mu ne man ni laa la kaay kaay nga zee kaay nga woo ku la neex mu ñëw zee ba xam ne dina ko <laughs> ku ko trouvé si plateau bi ma jox la vingt mille. lii. saa vingt mille yi nga dégg bu mu tax nga <laughs> non bu fekkee dafa am super chérie bu ci am wax ma. non am super chérie. <coughs> man am naa droit wax la lu ma neex nag pour nga fausser <coughs> Abdalaay Daaro Mbaar <coughs> Maajoor Daaro Mbaar ak Matar ak Alassane njiinoo njiin njiin faramaareen bu ni xëcc wurus xam naa ku jël ngalam doo perte may sa déggin mbaay bu may tukkee te yow laay àndal ey dama la eh boy bul ko trouvé nag du ma teg ah boy da nga am loo désactivé ci biir. boy da nga boy boy boy boy boy boy boy boy boy ah wala waay waay waay yow yaa ni la jox ko jox ko jox ko mu xool ba xam. jegal jegal jegal jegal jegal. maa ngi xool de bu ma déggee kër mooy perte nga waaw pare nga. <laughs> eh tafal ndànk am sama vingt mille francs yàlla na gudd fan. <laughs> maa ko déconcentré kay c'était l'objectif yow defal ndànk madame espagnole madame portugaise defal ndànk un deux trois on y va <laughs> su ma trouvé man damay jël sama vingt mille lekk ko man man côté bii laay jógee sax léegi parce que côté bii dafa compliqué. waaw commencé gu commencé gu commencé gu. barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Tuubaa <laughs> booy yi bii kenn mës na ko réussir si àdduna man man dama koy réussir de. may naa dernière dernière chance bii moom junni laa lay junni soo ko réussir parce que booy nuru nga ma ko mu mën a réussir li un deux trois junni. <laughs> mayaat naa la chance demal <laughs> ordinateur bi tàkk na. waaw après ñu xool ba xam seen affaire boobu mu ngi dox. da ngay xool lii rek xale bu xonq tur bëgg a gañe sama junni yi nii fajar gi waaw waaw yàlla nga laal de yàlla nga laal de booy lii laalul sax. Ah, booy. <laughs> booy Ablaye. waaw oh. booy bul gañe booy. <laughs> dernier virage lu waaye xam na ko jàng xulu allahu ahad <laughs> allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan booy ba gaña na booy sama junni bi nga lekk neexuma de barki borom njaareem yaa ngi lekk junni garaam bu ñàkkoon xaalis <laughs> six mille francs moo ma xaalis nga lekk sama junni bi nii bilaa walaay taalaay am naa lu ma métti maa ngi la koy jox avec contre cœur am teel booy da ngay jël tudd. waaw kay. c'est ah! booy ba gagné na affaire bi ani yow sa kii bi ya nga wax. jeu bi moom bu ko kenn dee sama plateau moom. mais Pape Sidi Fall moo boobu mu ngi lay seetaan depuis France Marseille. mais nuyul ma ko. Mhm. alors ça c'est le refroidisseur. Mm -hmm. on va poser ça ici comme ça ça va nous éviter d'avoir des problèmes. tegal tegal ordonnance ci voilà maintenant le refroidisseur nous comment on sait va refroidir. comme branché fiche eh, USB bi si port USB bi ordinateur bi. ordinateur bi mooy génne courant bi koy seddal moom. ok oui mbaa loolu du ko gën a tàngal. non non non. léegi dañuy appuyer si interrupteur bi. ah des mu ngi tourné. mais téye waaw waaw mu ngi sedd. léegi mën ngaa teg nii di utiliser antenne. sa mot de passe la. Ah! <laughs> waxal sa mot de passe nga xool kon sa gel bi dinañ xam kan la damay dugg directement dem message privé. allez vas-y. tabal tabal 9 3 4 4 il faut être pël pour réussir ça. Mm. booy bi jaañ la sant nga di pël. Emma. Mm. Emma Emma Emma. non mais booy. non non kaay leen la la la ngeen créé nii la la. anti vol. pour téléphone. anti pour téléphone mooy la. comme maanaam da ngay branché lii teg ci téléphone bi léegi ku ñëw jël téléphone bi day déclenché et puis bëggoon nañ ci def mooy bu nga nga xam ne soo ko tafee si ginnaaw téléphone bi charge. mooy max safe yi. buggoon nañ ko ci def chargeur sans fil mais amuñu ko quoi. amu leen ko. mais da koy teg muy chargé ku ko jël rek muy génne mu déclenché mais lii kon mën nga branché sa téléphone teg ko fii ku ko jël mu mu déclenché mu wax ne kii sàcc la. day def bruit quoi wàccal kii wàccal on va on va vérifier mais yow lii mu ngi seddal plateau bi ah. branche léegi il faut nga teg ko nga teg téléphone bi ba pare nga soog a branché. ma teg téléphone bi ba pare. sama téléphone a ngi nii maa ngi koy teg Alassane Diallo kenn déggu fi surtout kenn waxu fi surtout. teg ko non loolu change tourné ko tuuti. non tourné ko teg naa téléphone bi nii. bi soo branché led bi day tàkk soo soo jëlee. mooy lampe bi moo tàkk moom. soo jëlee téléphone bi rek mu def bruit. très bien léegi su ma jëlee téléphone bi lan lay def. bruit bruit maanaam king wala kang wala lan. day bruit moteur daal day vibrer comme. alarme. waaw waaw waaw waaw. non non wala ñu jël ñu jël ñu testé. mu téléphone baa ngi fi mën naa ko téye. léegi man branché naa sama chargeur nekk naa si xew xam nga xew gars yi dañuy profité di sàcc téléphone ñi branché ci kër yi parce que borom iPhone seen téléphone day gaaw vide léegi nga ñëw rek fekk ne am am am appareil bi yéen booy sebi kotaan yi defar léegi ma jël ko eh waaye yow lii dal la auzu billaahi mina seytaani rajiim téléphone bi maa ko moom ni ma jël ko mu yóbbu. <laughs> un deux trois waaw bàyyi naa <laughs> laalu ma ko ba dama doon farit nga ni lii am ngeen possibilité defal ko mu am chargeur. oui chargeur sans fil. maanaam bu ma tege. oh ça c'est du génie ça. Mm-hmm. félicitations les gars yéen ñaar kan moo créé ñoo ko defandoo projet yëpp ñoo ko. featuring la quoi. yow lan nga defar ci projet bi yax bi nga defar wala moteur bi. coque bi. coque bi nga defar. yow loo defar. Euh, circuit bi ñoo ko defar circuit bi nekk mais léegi su ma defee nii par exemple attends su ma jëkkatee téléphone bi rek teg sama loxo. Ah. mais doo dem. pourquoi du ma dem. Ah, wax nga dëgg de <laughs> doo yow bu téléphone bi de. boo yow man du ma sama rob eh bloqué naa ko de. en tout cas bu baax. bloqué naa ko de léegi nan la ñuy def pour mu ñëwaat. ¿ah? doy na. col bi moo bàyyi. teg naa. teg naa. mais man yàq naa ko de. yàq yàq naa seen sëbi de. léegi teg na non parce que man damaa damaa nduuxal. dama ko nduuxal quoi. man maa ko yàq. <laughs> non boy vous avez vraiment beaucoup de talent. quelle est la quelle est la technologie que vous avez utilisée c'est lan ngeen créé fii ba mu ba muy jël di def nii. xam nga lii nii. métal si suuf nii. waaw léegi fii tam daa am beneen kii nii bout de léegi dañ ciy soudé benn fil léegi lii comme interrupteur la su defee nii day laal weñ bi courant bi jàll léegi moteur bi du daal jàll léegi mu arrêté. léegi tant que courant baa ngi jàll moteur bi day daw. mais léegi moteur bi mënoo leen ko changer ak. waaw waaw waaw waaw waaw. ok loolu ko loolu amuñu ko. loolu amu leen ko. kon yow ñàkk matériel moo tax defaru leen loolu. ah man de li ma yoroon jël ngeen ko junni laa yoroon ak ñaar téeméer jël <laughs> la ci mere weer nga xam ne dëkk bi fi mu toll nga jël saa junni yi war a dem ak moom <laughs> ñu booy. yoroon kii nii matériel kii la defar benn mini centrale. mini centrale waaw oh, boo am te hydrogène moo koy doxal. yow mën nga defal mini centrale bu hydrogène. oui su ma amoon imprimé. hydrogène mooy quand on sépare les molécules de ah, l'eau eau. Oui, comme système électrolyseur quoi. waaw mais man da ngeen di dugal ay. Euh, ay rayon ngeen di dugal ci biir mu séparer. métal waaw ñaari métal hydrogène bi ak. Euh, oxygène oxygène bi. parce que dans une molécule d'eau il y a deux. hydrogène. Mm-hmm. Euh, benn oxygène su ma juumul loolu la. mais ñun ñaari takk yi lañ soxla hydrogène lañ soxla ak oxygène parce que centrale centrale ñuy soxla combustible te hydrogène xam nga day tàq léegi nag hydrogène hydrogène mooy tàq léegi oxygène day raviver flamme mu gën a tàq te loolu ndox kese ngay utiliser. Hmm. pour kii pour créer énergie ah, c'est un génie. Macha Allah. c'est extraordinaire. àdduna bi xam fan la toll Allemagne France Japon dëkk yu mag yi daal mm-hmm. ñoo ni wooy pétrole ak gaz li ñu koy utiliser dafa bëri te sa dégrade la l'atmosphère la nature nanani nanana il faut qu'on respecte la couche d'ozone donc ils sont en train de faire des énergies renouvelables mm-hmm. propres mm-hmm. mooy hydrogène bi ngay wax énergie solaire c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Allemagne dem ba ci àllub Mauritanie bi jënd fa ay centaines de milliers d'hectares fay leen seize mille milliards pour installer fa benn centrale photovoltaïque buy produire énergie bu am ah, solaire waaw solaire hmm. produire énergie pour mu doxal seen industrie bu foofu noonu Allemagne hmm. nga gis gars yi dañuy defar oto yoo xam ne ndox lay dawee léegi hmm. au lieu que muy dawee essence te loolu li koy def mooy li nga wax nii maanaam séparer molécule oxygène bi ak hydrogène bi hydrogène bi nga jël ko mu nekk carburant propre oxygène bi nga jël ko utiliser ko pour d'autres fins parce que nous avons besoin d'oxygène mm. c'est du génie ce que tu dis maintenant qu'est-ce que vous voudrez lan ngeen bëggoon su leen nit bëggoon jàppale lan ngeen di bëgg par exemple am na ñoo xam ne dañaan xaalis lañ bëgg yéen lan ngeen bëgg imprimante 3D imprimante 3D soxla nañ ko parce que mm. carton bi ñu defaree c'est fragile quoi mën mm. nga kaa laal mu yàqu te maa ngi nii yàq naa ko oh, waaw a waaw su tooyee aussi mën naa yàq carton bi léegi suñu soxla imprimante 3D dañuy jël machine bi ñu modéliser ci benn euh, logiciel su ñu paree ñu téléverser ko ci imprimante 3D bi moom mu reproduire ko en échelle réel quoi léegi suñ paree ñu def lu ñuy def ci biir euh, circuit yi ak fil yi affaire suñ paree kii ko imprimante waaw ak ay Arduino quoi Arduino parce que Arduino bëri na ay capteurs. Arduino moom mooy ce petit robot là qui programme qu'on donne des informations. qui les capte léegi da ngay télécharger benn logiciel. ci ordinateur xam nga ñaata la jël ay vingt deux mille xaw ma. suñu ah, amee Arduino ak am yëpp dañuy branché carte bi ci ordinateur bi suñuy defee suñu programme ba pare ñu téléversé ko ci Arduino bi après Arduino bi la mu def lu mu war a def. moom mooy a bi exécuté tâche mm. amoon Arduino bi tamit mën nañu kaa defee beneen façon ba dañuy def benn capteur ci suuf. vous avez besoin de combien d'Arduino. Arduino kit complet bi day am lépp quoi. benn rek ñeenti zone. waaw benn wala ñaar. wala ñaar. waaw ndeysaan ils sont ils sont ils sont c'est des enfants. booy gars yi mbër yi fii dañ leen di may vingt millions ci benn làmb yéen li ngeen soxla ni ngeen fi wax agum nii matagul un million <laughs> c'est-à-dire vous n'êtes en train de rien dire de de grave. léegi su leen nit bëggee jot est-ce que y a possibilité mu woo leen téléphone. téléphone bu dul sonné fii ah. Hmm. wala bu fekkee seen téléphone mu ngi fi ngeen def ko mode avion. Ah, def naa ko def nga ko mode avion. bu leen nit bëggee jot ban numéro la leen di jotee. numéro ci 78. 636 54 39. waxaatal numéro bi gars yi bindal leen ma numéro bi en commentaire s'il vous plaît. 78. 78. 636. 636. 54. 54. 39. 39. 78. 636. 54. 39 39. fan ngeen dëkk ci Sébikotane seen maire bi mu ngi leen di jàppale est-ce que vous êtes appuyé par les autorités de Sébikotane. non est-ce que xamagum xam nañ leen yéen. non vous n'êtes jamais parti leur présenter ce que vous faites. parce que je pense que si les autorités d'une localité savaient qu'il y avait des génies comme vous capables de faire des merveilles comme vous les faites dinañ leen gestu xanaa wax dëgg yàlla jàppale leen. parce que si seen moment de gloire lay doon j'ai aidé tel jeune à devenir parce que loolu ku nekk war ngaa surtout bu ñu la dénkee ndombal tànk maa ngi nuyu maire bu Sébou tan bu baax te di ko takraaru baat yi jàppale leen parce que le mérite mhm. je ne dis pas n'aidez pas les artistes hein, ou les sportifs mais ces jeunes là sont l'avenir de demain donc si vous les aidez aujourd'hui vous pouvez avoir la reconnaissance de Tesla parce que Tesla c'est euh, c'était un génie à son époque mais qui a été honoré par euh, Elon Musk et ses équipes bañ tuddee ko voiture électrique parce le père fondateur de ça waay waay góorgóorlu leen ci xale yi waay 78 637 54 39 636 ah 636 636 du 37 booy 636 la Khadim Gueye changel sa li nga benn commentaire yaa ngi may induire en erreur 636 54 39 booy ñoo koy bind ci commentaire yi mais Khadim Gueye laa yem ci moom mu wax 37 ma juum def 37 mais du 37 36 la. un commentaire. Hmm? vous en tant que euh, éducatrice. oui oui macha allah comme ni nga wax rek autorité yi d'habitude la plupart na dañ ko dul yëg mais buñ ko yëgee ñii ñu ñu ñu jot ñu mat a jàppale lañ. waaw parce que wax dëgg fa yàlla âge yi ñu am ni ñu am possibilité di créer yi ñuy créer. Euh, ñi bu ñu leen jàppalee mën nañ créer sax leneen donc euh, xanaa di woote rek appel euh, ñëpp képp ku ci mën a jàpp muy autorité que nga bañ a nekk autorité mën nga ko jàppale parce que des fois am na ñoo xam nekk autorité sax te ñoo gën a mën a jàppale yenn xale yi nii def. Pape Loum nee na imprimante 3D ça coûte combien. ñaata ngeen ko ko jaay. Euh, si. c'est que dafa raar nag. am na benn kit Arduino bi ñaata la jar. am na benn magasin bu koy jaay trentaine de mille quoi. trente. trentaine de mille quoi. trentaine de mille quarante cinq mille lay jar. quarante cinq mille kit ar. <laughs> kii nii am na benn site buy jaay imprimante 3D ak kii yëpp. <laughs> c'est que des fois damay gis gars yi dem ba si jàppaleel booy ñu am financement. Mhm. Arduino kit complet bi quarante mille lay jar. quarante cinq mille quarante cinq mille. je je parce que ñun ah ñun soit Mali. Mhm. wala Mauritanie wala Gambie wala Guinée am na ku ñu sànni korte ñun Sénégal on est mystiquement atteint parce que mënuñoo am yi ñu am ba pare man damaa wax a wax a wax ba selengank man damaa wax a wax a wax ba amee boli damaa wax ba ñu jéppi ma damaa wax ba autorité yi léegi damay romb ñu naan booy toi tu dis des merci est-ce que doo booy Pastef ma ne leen qu'est-ce que je dis de Pastef je dis des choses qui sont utiles la société yéen tout ce que vous trouvez comme argument de réponse <laughs> quarante cinq mille lay jar kit complet <laughs> deux cent mille lay jar imprimante 3D nga jox ko ay gone ñu defar ñu defar ay affaire yu extraordinaire mais lii dafa yomb billaay walaay talaay man sama xol bi muy sedd si yéen booy parce que la plupart ah, ah, vidéo yi vidéo yi jeex na émission bi jeex na bu subaa ñu jàllale ko mm. mais tey moom mënu ma ko jàllale dégg franchement froid dans le dos mm. ça rire et ça plaisir et peur parce que vous me faites plaisir quand je vois des jeunes aujourd'hui ñu taxaw seen compétition nekkul créer fecc seen compétition mooy kan mooy créer appareil bu gën a high level. ça c'est applaudir. ça fait peur mooy bu ñu leen seetaanee après dañuy mujj créer créer créer ba mu yàgg daal ne ah amul benn issue. il faut que ñu créer ay champion. Mhm. fekk ay boo yu mel nii ñu jox leen opportunité ñu créer ay affaire xoolal imaginer appareil bi. Mhm. bu ñu ko jëlee topp boo yi ba mu parfeeru ku nekk bëgg nga ko am sa kër. ku nekk parce que di nga dugg benn kër ñu naan sàcc de guddi gi la dugg ramassé na téléphone yi ci kër gi yëpp. lii boo ko defee sa téléphone saa ci borom. yàlla bu mu am chargeur nag. waaw normalement ki lañ ci waroon def benn genre ressort mais mu jéem ñoo am ressort ñu def ko kool moo tax mu gaaw yàqu nii. ressort ngeen ci waroon def. ñu amoon capteur aussi ñu def ko ci. capteur oui. mais merci beaucoup les gars merci de venus. Oui. vous message. non vous voulez remercier quelqu'un. si. qui. man moom je remercie mes parents quoi parce ñoo may jàppale depuis euh, su ma soxlee dara rek ñoom koy defal quoi. très bien. je remercie mes parents ma famille qui m'ont soutenu dans tout ce que j'ai entrepris et ils m'ont financièrement aidé mes parents. Mhm. dans dans Surtout mes projets papa. oui. papa on le remercie pas assez mais moi je sais de quoi je parle c'est le chef des jeunes Katu Kado mais quand il faut faire les bisous c'est maman quoi. <laughs> Maman, elle vole la vedette à tous les papas. <laughs> Maman, c'est une usurpatrice de fonction. <laughs> Mais bon, ça c'est vraiment le Sénégal qu'on aime voir. Mhm. Merci beaucoup. Euh, Dioufonyorobaï Samba Borom Gagni. Adja, merci d'être venu sur le plateau. Si vous avez un message pour terminer, ce serait quoi euh, xanaa di remercier ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal association yi membre association entre nous yëpp commencé ko ci vice président ba ci membre simple bi ba ci sympathisant bi. parce que dañuy jël seen temps jël seen doole jël seen énergie jël seen xaalis saa yu ma leen woowee ñu ñëw réunion à n'en finir di leen sonal des fois ma yuuxu des fois ma énervé dafay leen nii bëgg rek lépp parfait lépp parfait donc maa ngi leen di remercier di remercier képp koo xamante ne yaa ngi jàppale association entre nous euh, muy euh, donateurs yi muy ñi nga xamante ne seen xel bu rafet la ñuy andi di remercier aussi suñu parent yi suñu yaay yeeg suñu papa yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir HLM. tamit jàpp ci association bi képp koo xamante ne daal yaa ngi ciy def sa doole di si def sa xalaat di si def lépp loo ci mënti def daal maa leen di remercier mais surtout membres yi nga xamante ne ñoom ñoo sanc entre nous su ma leen mënoon lim dama leen di lim benn par benn mais xam naa ne temps bi duñu ko permettre mais nañ xam ne daal ñun kontaan nañ bu baax a baax baax si ñoom Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été là avec nous depuis le début de Good Morning. C'est comme ça tous les mercredis. Les habitués de cette émission, ils savent très bien ce qu'on fait. Euh, merci à toutes ces personnes qui ne se découragent jamais à vouloir créer, euh, euh, merci beaucoup pour la coordination avec tous ces jeunes génies créateurs. koo xam ne am nga mbokk wala xarit wala rak wala xale bu nekk sa kër di créer yu mel nii mën ngeen a jokkook 77 732 62 21 77 732 62 21 ngeen yónnee ko li ngeen defar ñu xool xale yi lu ñu defar ñu invité la à la télé mag xale na nga créé benn affaire boo xam ne bu ko wanee ci télé bi doo am gàcce donc merci beaucoup à Papis Thiaré pour cette coordination merci beaucoup à Fallou merci beaucoup à Mbarak merci beaucoup à Badiane